senevision.com wor lañuy teggo tëggoo senevision.com kumpa tàggoo nag yéen kii nag di len way di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bëss cloche bi internet yi nga xamné ne yéen a nuy seetaan ci Senevision ak Rewmi Média ñu ngi len di euh, nuyu bu baaxa baax te di len euh, ziyaara tay ji nak euh, yamok fukki fan ak juróom-benn ci wéru février atum 2023 ji ñu nekk Eh, ñu ci fàttaliku Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke nekkoon ñaareelu xalif Cheikh Mouhamadul Fadal waaye nekkoon juróom mbenneelu xalifa ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim eh, nekkoon koo xam ne taxawaayam ci yoonu murit taxawaayam ci biir kër Serigne Fallilou nekkatu lu kenn di nattable nekkoon jàmbaar nekkoon koo xam ne borom pas-pas la woon borom pasteef la woon. Eh, ginaaw ci at yele ci ginaaw nak mu wuy ji boromum njabot gi nak machallah ci njital serigne Moustapha mbake ak mbollem ñi nga xamne ñom la bokal Cheikh Lamine ñuy fataliku bis bobu ak diko nyana ci ñaanal bu baax ñuy ñaan suñu borom mu gëna a leeram te tass ñu ci barkem fi ñu yëkëté kaddu nak moy ndamatu ki ñu togal yakarna min ngeen ay image am machallah muy sunu serigne di sunu xarit di eh, serigne Saliou mbake Euh, moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké moom it muy dundal bis bi ci ni nga xam ne it noonu la ko euh, njaboot gi di dundalee ci jàngal xuraan jàng xasida salaatu ala nabi waaye amal ay bernde mboolem ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ak ñi nga xam ne ñoom la wóolaranteel ñoom ñëpp macha allah teew nañu fi euh, tey nag ñu nit ñu ñëw fi ngir fa yéene seq mu waxtaan ci bisub woy juróom bi waaye su jàllee du ñàkk ay kàddoom di ngeen ko faral di dégg. serigne bi ñing lay nuyu di la ziyaara ginnaaw bu ñu dalalé fi ci sa bërepp bi noo ngi lay dalalat ci sene vision ak réew mi média di la bàyyi nga nuyu mbokk yi internet yi nga xamné jamono ji ñom ñolay sétane wa alaykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin aloon na maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan ci sunuvision.com ak réew mi di sant yàlla bu baax ndax daaw ñëwoon nga fii jëloon lenn ci ay kàddu ñu ñaanoon yàlla bu déwén ne ñu fekkewaat ko sunu borom defal na ko ci mbaaxam sunu mbokk jullit yi jiitu ji ñu ngi leen di ñaanal yàlla sunu borom jëggal leen. nun ni fi desende it ñi ngi ñaan yàlla sun borom tek ñu siratal mustaqim way ñi ngi jiital ci ziar bi ak ñaan yi sahibul fadila Cheikh Modou muntaha di ko ñaanal yàlla sun borom may ko fànn gudd lool te ànd ak wér way diko jaarale ci sunu kilifa Cheikh Abul Baraka mi nga xamné mo fi nekkal Cheikh Modou Fadal mu jaar ci sama kilifa Cheikh Modou mustafa mi fi nekkal Cheikh Modou Lamine kon ñu ngi lay delo nuyoo di lay wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf xam naa comme niñ ko waxee rek ci ndorte li ñu dooree waxtaan wi ak euh, Cheikh Mouhamadou Lamine ji ñuy fàttaliku tey jii euh, ci kàdduy seede rek loo ñu mën a dénk euh, ci sa wayjur wa ci ay taxawaayam ak lenn ci ay jikkoom. waaw loolu moom dafa am sama benn waajur bu ñuy wax si Ahmadou Rafahi yàlla fu yàlla yàggal loolu te wér dañ ko mës laaj lu mel nii ci ki ma laaj mu ne dafa am loo xam ne boo ko defee ci ñaar. boo ko defee ci nit astaghfirullah ñaar yoo xam ne boo ko defee ci nit nga wax ci moom dina jafe mooy koo bëgg lool wala koo ragal lool ragal nag suñ ko waxee vegel la rek dañ koy tekkee vegel nga laaj ñooñ ci jëmm joo xam ne ñu bari nañ ko xamee mi ngi tudd Cheikh du Lamine ñu góor ngi koo xam ci Alaaji Baara Baara gi nag mooy Lamine rek bu dee ci arab moom mooy ku ñu wóolu al amin ni ñu ko di woowee yonent bi alayhi salaam mu nekk nit koo xam ne ndaxit damay faral di wax ne nit loo ko bëgg-bëgg soo ko weesooloo nit rek yaay ko ko suufeel nit la doomu aadama la yonent bi alayhi salaatu daf koo wax xul inama basarun mislukum la wax waxul sax nit laa de waaye dafa ne nit laa comme yéen mislukum la wax sama wuute ak yéen nag mooy yàlla daf may daf may wax mooy yu yuuxa yàlla daf koy wax yu tudd ni waayu kon bu kenn bëgg nit ba weesu la ko nit wala bu kenn fonk sa sa nit ba weesu la ko doomu aadama waaw doomu aadama euh, lu yàlla bind moo ko ci gënal yàlla na waxut na moo gën lépp waaw kasiiran la wax waxut ne moo gën ñëpp waaye moo gën lu bari la wax ñu bari na dañuy jaawale foofu lu yàlla bind moo gën ne ba alxuraan waxul loolu kon wax di yàlla muy jëmm joo xam ne ci doom ci Cheikh Modou Fadal ni ko ñëpp xamee nag kon nit koo xam ne wax dëgg yàlla ak dundam yëpp alquran la woon ndax ci siraatal mustaqim la nekkoon waaye rawatina yoonu maamam bii nga xam ne mooy yoonu morit mu am ci taxawaay boo xam ne nag bu ñëpp ràññee la moo xam ñi ko xam ak ñi ko xamut waxuñu ko nag ngir li ñu nekk doom ci moom waaye dañ koy wax ngir li ñu dund ci moom te fii mu toog ñu ne ci jataay bi yëpp ak ñu bari ñu ñuy dégg mën nañoo wax ci sama place parce que damay faral di wax ne Cheikh Ahmadou Lamine kenn du ne mook sama maam la woon wala nga ne mook sama baay la waaye danga naan maak moom la woon ndax yàggagut Baye Diop mi toog rek mën na ci seere ak keneen ak keneen ak keneen kenn ku ci nekk am na ak yow xalaat boo xam ne man ngaa wax lum la defal ci lu baax mën ngaa wax fu mu la taxaw mën ngaa wax it fu mu la féete woon yittee doomu aadama yi moo ko gën a loolu lu mën a am ci àdduna ndax xam na ne yittee doomu aadama yi jaamu yàlla la te jaamu yàlla moo ko gën a lu mën a am ci loolu la ma sa nekk mosu cee jóg ba nii mu wujjee sunu borom ba addi fan yi mujj yi ba waxtu yi mujj yi saa su nekk mi ngi xool ba xam am na koo xam te ni am na yitte ci moom wala am na loo xam ne war na ko taxaw kon duñ def lu rek di ko delloo ñaanal yàlla njëggalam ak yërmandeem wax di yàlla jëmmul joo xam ne mu ne su cee wax lu weesu ab jaamab yàlla la woon mënuñ ci wax lu weesu ab murit la woon di murit saadix nekkoon nit ku baax nekkoon nit ku oyof nekkoon nit ku bëri yërmande nekkoon nit ku tabe nekkoon nit ku yaatu waaye nekkoon nit koo xam ne it ku doon doxal diggante moom ak boromam la rawatina nag jaame suñu borom yi nga xam ne ñoom la ko yàlla boole loon. Mhm. jërëjëf kon xam naa ne loolu moom euh, doy na sëkk euh, ci Cheikh Mouhamadou Lamine ndax xam naa ne géej la goo xam ne. ci ay jikkoom ak ay taxawaayam bu ñu fi nekkoon fii ba suba di ko wax xaj na duñu fi jóg ñu ci doon barkeelu rek su ko defee ñu bàyyi la nga tëjee ci sëriñ bi ak màggal gi su ko defee comme gan ñaa ngi ñëw ak yooyu ñu dugg rek ci ay quelques points ci actualité bi rek su ko defee mën laa yoroo waaw niñ ko waxee rek dool di ko ñaanal yàlla njëgal rek ak yërmande te sàkku jullit yépp nag ñu ko ñaanalul yàlla ndax ñaan du doy rawtina fee mu nekk tey ki nga xam ne moom la ñu yàlla booleel ñu koy roy mu yonent bi alayhi salaatu wa saa suñ tuddee turam lañ cay teg mooy sallallahu alayhi ak ñaan la te yàlla moo ne man maa ngi julli ci moom ak sama ay malaaka kon yéen tamit da leen julli ci moom kon bu kenn maanaam weesu li olof di wax naan yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel cat mooy ku dem ñu jàpp ne jërutuloo ñaanal loolu dëgg-dëgg mooy cat kon nañ ko delloo ñaanal yàlla yàlla dolli ko njëgal doolu ko yërmande moo ñam fa fekk ak ña fa fekk ak ñun ñi di ko fekk itam te ñaan yàlla mu xëy ñu siraatal mustaqim tënk ñu ci ak njub ba nga xam ne li yàlla santaane ci ñun muy ñu jaamu ko bañ ko boole kenn dara bañ ñu cee génne bi jaay Seydina Muhammad barkab Seexul Xadim euh, su ko defee ñu daal di dugg ak sëriñ bi ci ay quelques points ci euh, actualité yi nga xam ne mu ngi xew ci réew mi ndax sëriñ bi kuy faral di suivre actualité la xalaat tamit léegi léeg mu faral di ko joxe lu bari ci réew mi sëriñ bi bu yàggul nemmeeku nañ fii ci euh, département bu ay euh, manifestation yu nga xam ne déjà am na fi euh, ci diggante ñi nga xam ne ñoom la ñuy wooyee ay patriotes ci benn meeting boo xam ne waroon nañ ko amal le préfet du département gàntal lu ni mel donc ginnaaw bi ñoom ñu ne dañ koy amal ba seen leader njiital Pastef Ousmane Sonko ñëw fii ziare xalif bi ci jumaa jeegi ci aju ginnaaw bi ay yëngu-yëngu am ci euh, dëkk bi euh, ba am ci ñenn ñoo xam ne jot nañ cee ñàkk seen alal yàq nañ fi ñaari station essence euh, yàq nañ fi aussi Senelec bi Sonatel bi yàq nañ aussi seen champ bi donc ak yeneen ak yeneen yooyu am fi en tant que ngay kilifa diine lu mel noonu noo ko jàngate waaye koy daanaka daanaka tontu nga laaj bi sax ndax résumé nga li fi yàq te baatub israaf moom ni ko arab yi di waxee israaf boo ko xasee wax rek mooy yàq daanaka du lu du lu gën kon mën naa ne yow li nga laaj daanaka mën naa ne tontu nga ci di masawu nag ñu seen alal dem ak ñi ci am ay gaañu gaañu waaye yàq moom duñ ko rafetlu ci genn wet moo xam wet gu mën a jóge nag ndax du lu yàlla rafetlu kon ñun tamit ginnaaw ay jaamu yàlla lañ di ay jullit yu góorgóorlu ci diine islaam duñ man rek lu def sukkandiku ci li nga xam ne euh, moom la ñu yàlla tënkal ci alxuraan mooy yàq baaxul ba ci sax niñ koy misaalee dem ba ci tefesu géej gi ngay tànk ci ndox mi di tuur sax dañ koy tere rawatina nag nga yàqal sa moroomu jullit yàqal sa moroomu taalibe loolu lu ñuy lu ñuy lu ñuy metti lu la waaye ji leen masawu également tamit ci li nga xam ne dal na leen. bu ko jàngatee au fond da ngay jox toor. ñi nga xam ne mooy le préfé wala état bi wala ñi nga xam ne ñooy opposition bi amal lu ne mel. waaw xam nga dama xamul nag euh, sabab bi fan la jógee xam naa ne rek dëgg naa bokk saxfur laa ñu ne bëggoon nañ nangam muy manif seen meeting bi ñu jox kayit préfet bi préfet bi gàntal préfet bi moom moo jàng lu tax mu gàntal euh, li olof di wax rek mag dana ne ci suuf gone na ci kaw te du gis li mag mi ci suuf di gis préfet bi moma gëna jëgé moma gëna moo ma gën a jàng xam xawma lutax mu ne duko gantal way bu dee ci yoon la ko tek mu yoonu Sénégal xol diggante moom ak boromam rek man jort na ne ko ko nangu mu ne la waw suna la déet da nga wara nangu man lu la gëm way nak du mo moo xam deug deug nak lan mo waral mbir mi ak dan mo au fond kon duma ma mën a juger loolu wala ma def ci ben atté bo xamné ne day fekk ma wax ci luma leeru te lolay daw coow mi ngi jóg ñu bari di diaboliser que ne euh, euh, waa Pastef li leen tax jóg mooy euh, xeex wala bàyyi maanaam gàntal li nga xam ne wala nasaxal li fi mag ñi bàyyi woon parce que am na kenn ku bokk ci ñoom génn na fan yi di wax ne ñoom procès Pastef du question rek teg président Ousmane Sonko ci réew mi mais am na yeneen yu leen tax a jóg mooy fexe ba génnee nit ñi loolu moom audio bu siiw la boo xam ne yaakaar naa xaj na war nga ci jot wala keneen jot na ci mooy ne génnee nit ñi ci jaamu nit. mais ñu yóbbu leen ci jaamu borom bi kon mu mel ni li ñuy wax xeetu euh, tariixa yi nga xam ne am na fi mu mel ni kon ñoom peut-être su ñu déggee seen ay kàddu ci ñenn ñi ñi ko jàngat mooy ci ñi nga xam ne parti au pouvoir la ñu nekk wala ñeneen ak ñeneen nee nañ nasaxal li fi mag ñi bàyyi moo leen tax est que yow bu dee li nga wax moo ko wax muy jaamu nit man ci ñooñu laa bokk ndox nit kenn lu ko jaamu bu dee moom ñoom ñoo ko wax te loolu mooy seen yitte bis ni ngi tey ci ñoom laa bokk ndax man du ma nangu koy jaamu nit yàlla la ñuy jaamu bu nag lu jëm ci nasaxal lifi fi mag ñi bàyyi mooy nasaxal lislaam te ñoom bu dee loolu seen yitte itam tuuti nañ ci nasaxal lislaam ndax mag ñi moom yaakaar naa ne kenn amul fu mu di jamee koo fekkewul nag wala sax mën naa ne sax doom ab taawam sax fekkul ci jamono kon nag la mu tëral boo ne da nga koy jéem a nasaxal yaakaar naa loolu weddi nga sa bopp fa saasa bu dee loolu mooy seen yitte loolu wedd nañ seen bopp ndax mënut a nekk ndax biñ koy taxawal ñoom la jamono gënoon a métti la noon ya gënoon a bari te jéem nañ ci ba sonn mënuñu si dara ndax ñoom kat li tax euh, luñ taxawal kenn du ko mën a daaneel dañoo yëkkati waxu yàlla rek topp ci siraatal mustaqim waaye bu dee loolu mooy seen yitte moom yitte ju du fajo la leen yàlla dénk ndax loolu du ma sa faju waaye nag bu dee li nga wax ne nag dañoo jóg nag ngir ngir tere ñuy jaamu nit loolu mom, naka jek ken waru ko def yalla rek lañu jamm jaamu doomu réew mi dafa melni ni léegi dafa xawa dafa xawa a ba ñu bëree bëri euh, ci askan wi euh, di wax ne kilifa yi war nañu gëna yëkëti wat kaddu di sensibiliser ñi nga xam ñoy ñooy nit ñi ak talibé yi. kilifteef manki wut ñu nangu ñu don ñu don yilif ñoo manqué waaye kilifteef manki wut dafa am kilifteef nak ak ku nangu damay wax ne ku bëggal ko roy jërut ngay bo doxé ñaari jéego gis lo ray bo deglo ñaari kàddu gis lo ray ku bëggu to ray nak mo fi am waye luñu roy amna fi ñu ñu roy am na fi nasaxal mu munta nek lolu fatna moy lima wax léegi rek ci ci li nga wax kon nak ñi nga xamne nak nag nangul ko leen yilif ñu tuuti lañ waye ñi ëpp ñu leen yilif ñu ko ñu bëgg ko leen yilif ñoo ñoo fi ëpp waaw loolu nag bëgg-bëgg doomu aadama la ndax aduna lu ci ab lu ci bët rek sarul bariya dafa am khairul bariya am ni ko alxuraan andee kuréel gii ci lii la ñu nekk kuréel gee ña ña ña nekk ci lee alxuraan nee na sumun bukkumun xumun fahum laa yarji'uun koo xam ne dafa gumba tax lu du gis kooku mënul xam sax fa mu jóge woon mënu fa delluwaat kon loolu ñooñu faaw ñu am ci àdduna na ñooñu rek bañ caa bokk ñun nañ bokk ci ñi ñuy yilif nañ bokk ci ñi am ay royukaay nañ bokk ci ñi nga xam ne tamit saa su nekk ñu ngi xool lu baax ñu ci teg suñu tànk suñu sañoon nag ñëpp ci loolu la ñu nekk waaye ginnaaw yàlla ci boppam moo wax ci alxuraan ne su ma neexoon kenn du doon yéefar waaye ku doon yéefar nag gënalu ma wala yardaa la wax gërëmu ma wala yardaa li xibaadil kufur la wax waaye nag bu doon wala yuridu nag li xibaadil kufur kon kenn du doon yéefar ginnaaw yàlla nag moo bàyyee noonu àdduna dispersé ko noonu te moom lépp sañ lépp man munu munu ma joxe sama message ci ci ci dogalu borom ci borom bi waaye damay waxtaan rek tuuti ci xam-xam. kon nag kuréel gi nga xam ne dañuy bañ ñu leen yilif du fi jóg li di rek ñëpp bëgg doon kilo waaye liibar mënut a ñàkk ñun nag nañ fexee doon kilo bañ mën ñoo jëriñu. Euh, fi ñuy jeexalee sa digg ak euh, njiitum réew mi président Macky Sall foo seen diggante toll ndax kon ne xamoon na sa diggam ak euh, sa waajur ak yi mu ko defal ak ya ci aju ñu bari di ko wax seen diggante ci jamono ji fan la toll ndax am na jamono déggoon nañ nga defoon benn sortie bu xaw a tàng. waaw sortie boobu nit ñi dañoo jàpp ne. mere la wala santaas la wala déedéet damaa wax fi ñu jaar waaye ñi nga xam ne xëy na ñoom jàpp nañ ne fi mu jaar ak sama waajur te maam lu mu ci fekkee doxiwoo ko nam ko waroon doxee ñoom ñoo ko interprété noonu ba ci soxnaam sax bi ma woowee ci jamono yooyu moom comprendre na man fi may waxee bam ne ma sax man yow laa àndal ci loolu waaye sama diggante moom weesuwut yàlla boolewoon nañu man téye naa ko man ndax man nee naa leen lu mu a def ci àdduna ko bàyyi parce que ki ma booleeg moom ñëwaatul ne ma bàyyi jàpp ma ko ngir lim doon jàpp ma ko ngir lim may defal jàpp ma dama ko jàpp ngir ki ma booleeg moom ba xam ba ba tax na lépp lu mu soxla ci réew mi te mu ne sama loxo mbaam man ca dara lu ma ca mën dinaa ko def benn yoon laa ko mos a gis ba mu toogee léegi ñaaraatut te dañoo daje rek daa amoon soxla maa fa soxla ñu daje fa ñun ñaar seetu ma ko moom it seetu ma waaye meru ma ko ci loolu ndax xam naa ne li mu yor su ma ko yoroon yaakaaru mu dinaa ko fàttaliku kon bu yoree lu toll noonu tamit te ma loolu du problème. dama ko ñaanal yàlla may ko ndam ci li mu nekk man tamit li mu nekk borom ma ci ah nak loolu tuuti ma ci nak, ndax ñaata nit la jël ñu koy xelal waaw ñaata nit loolu président de la République xam nga ñu ba dañuy ja dañuy dañuy xamul ne euh, doom dom wala soxna sax bu la ko dafa am katan gu mu ci yow ngir nga mën yilif ngir nga mën dundal ngir nga mën koo ngir nga mën koo rawatina nag 16 millions de sénégalais. président de la république mënul yem ak nit ñi parce que yàlla moo ko wutale ak nit ñi parce que lu toll ni am réew yàlla teg ko ci sa loxo kon kooku yàlla mënul laa mënul génn loxoom ci yow mënul nekk waaw yàlla munul génn loxoom ci yow xëy na ñu bari dañuy xool intérêt ñii di xool leneen ñii di xool leneen waaye mënul nekk nitu nit koo xam ne daal eh, nit ñi rek lay doon comme ni koy waxee donc lu donte lu ëpp nit am amut waaye nag tuut naa nag ci di ko jox xalaat ci réew mi. ndax yaakaar naa mooy nit ki ëpp information ci Sénégal mooy nit ki gën a gën a gën a euh, koo xam ne lépp luy xew ci réew mi à la minute da koy xam kon dana xaw a tuuti dafay defar di ko ñaanal yàlla rek yàlla may ko ndam ci ci li muy liggéey yàlla jàppale ko ba nga xam ne fii mu yóbbu Sénégal tey nga xam ne ku wax ak ku waxul ku nangu ak ku nangul moo fi am waaye Sénégal ñëpp xam nañ ne ñëpp xam nañ ne yëkkatiku na yëkkati koo xam ne wax dëgg yàlla yàlla ci loxoom la ko jaarale waaw loolu kenn mënu ko dindi ndax lu ñuy teg bët la dëkk boo xam ne foo bëgg a dem dem euh, yoon yi ñu problème yi amoon dañ na courant bi waxi nopp leneen leneen leneen leneen donc su ma doon lim li nga xam ne def na ko ci réew mi donte nag ñun ñoo ko jox doole ji ginnaaw suñu borom jox ko suñu suñu euh, kàddu jox suñu budget waaye du moom lañ ko ñoo ko jox mooy ñeent nit ñu ko joxagoon kon donc kon dama koy faral di wax loolu. beneen dénkaane bi ci sama mbokki Sénégal laa koy jëmle ñi nga xam ne. Euh, ay ay ay sytéfans yi lañ damay faral di wax ne dafa mag mu ñuy wax Serigne Malick Bassine si dafa waxoon ne ñii falu ñoo fi jóg waaye ñii fale duñ fi jóg am na ñu wataloon Senghor incha allah dinañu watalaat beneen président te watal président Macky Sall kon ñun ñi nga xam ne ñoo ñun la yàlla jaarale fal gi suñu loxo nañu xam suñu bopp xam li ñu yor xam li ñu doon yemit ci li war a yem am na loo xam ne lislaam rek moo ko jar dara ci àdduna jaru ko adduna ji ñu nekk dañ koy dàq duñ ko dab te def ñuy dàq danañu dab kon loolu lu ma a bàyyi xel la maa ngi koy fàttali sénégalais yëpp ak sénégalais yi ñu xam ne daal yëf yi daal du du jihaat du du lenn loo xam ne daal jar na yéen lii xew tey kenn ku ci nekk nañ ko doxee ak sa xel am réew mënoo ne dama ko bëgg te loo romb koo defub doom am réew mënoo ne dama koo bëgg te koo gis doo ko yéene jàmm ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon loolu daal maa ngi koy baaxee mbokk yëpp. senevision.com wóor la ñuy tëggoo senevision.com kumpa tàggoo nag yéen. kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu sit bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi.